que bu dul loolu rek vote par sanction dina am pour rester justement euh, par rapport aux élections territoriales la discorde à Pikine euh, ñun ñàkk jubóo ci suñu biir malheureusement moom mooy suñu cat euh, ñàkk nangulante moom moo gagné wala gagné wut mooy laaj bi. alors laaj bi je je crois dama ciy tontu de manière très claire wàllu Sénégal ma jiite woon ko ci bi di goxu dafa gagné et dafa gagné très largement. Mhm. dafa gagné très largement président Macky Sall bëgg parce que xam nga bi ñu voté ngoon gi am nañu résultat yi ci ëpp def nañ suñu statistique plus de quatre-vingt pour cent des bureaux gis ni deux mille quarante cinq voix la ñu jiitoo APR Benno Bokk Yaakaar mënatuñ ko dabe ñuy nekk di tappale di tappale ci au niveau de la commission mm-hmm. ba alors ñu gis ci ay yu doy waar doy waar benn boo gisee liste départementale mm. xam dafa am élection commune am élection ville élection ville tey mën naa ni boo demee plusieurs communes yu bari bureau du vote yu bari dañ fa dugal ay listu ñoo xam ne seen yoo nekkuloon ci liste communale bi mais comme comme yeewi askan wi xam nga dañ leen a a euh, baare woon dañoo jël seen seeni seen i dugal ko ci yenn bureau yi jël ay bureau bokk gis-gis jël ay NP IPD et cetera loolu bi résultat yi génnee biñ jotee ñun suñuy euh, PV lañ gis boobu supercherie ñu def bañ àggee ci commission bi mais ñu ne ñii bokkul ci liste bi dañoo euh, dañ leen ci dugal te bokkuñu ci kenn mu leen comptabiliser dañ koy analyser dañ koy euh, dañuy supprimer yooyu bureau président bi du mukk moo day du ko def dafay juste barrer seeni seeni score muy benn façon buruj ju njaaj bu ci président Macky Sall ci organisation élection yi beneen façon wuruj njuuj njaaj waxaat ko ci kaw wuruj njuun juun juun njaaj njuuj njaaj waa njuuj njaaj donc loolu dafa am ci suñu biir Euh, dañuy dañuy euh, làkkalante di yàqalante di di di fexe ba plan wax nga ko sànq nga ne yaa gagné fële ci diwaanu Pikine président Macky Sall nga interpellé directement mu bëgg ko yàq naka la ko bëggee yàq. non da koy da ko bëgg a foqati. parce que dafa dafa utiliser la commission nationale de recensement des votes ñu programme ay résultats jox. Euh, APR benn bokk yaakaar la victoire. Mhm. te ñoom seen bopp xam nañu amuñu victoire. wóor na leen ni man maa leen gagné maa leen gagné lu bare bari fi ñu nag yàlla def na supercherie lu ci bari ñu koy génne déjà rien que buñ gisee buñ comptabiliser li ñu voté ñun. Mhm. ñu jot ko mu génne ci bureau yi. Mhm. ñoo leen rawee lu bari. mu am beneen njur beneen wuruj njuuj njaaj bu am sol <laughs> mais mooy bi ñuy proclamer euh, résultat yi bureau par bureau. waaw gars yi di euh, chang li nekk ci PV yi. mais euh, li nekk ci PV yi cest à bi. c'est-à-dire que bi gën ci ko mhm. mhm. benn président fa am. xam nga comment président day yor bureau de vote day yor liste bi. Mhm. turu bi turu centre bi. commencé di wax nombre. Mhm. à la suite à la suite. effectivement donc toi soit yow da ngay suivre li nekk sa PV di contester ou bien da ngay jël note li président yi wax après nga mën a revenir on s' est rendu compte qu' plus de 2000 voix yoo xam ni xam nga mooy sa càccu gu ndaw dañuy dañuy dañuy yokkal APR fii 10 voix. fii cinq voix fii quatre voix bi biiru trois voix wàññil wàllu fii trois voix wàññil wàllu fii deux voix wàññil fii trois voix loolu nag heureusement suñu représentant am amoon na la présence d'esprit muy bind li président bi wax te on a comptabilisé ça gis ni beneen façon wuruj ak njuuj njaaj le président Macky Sall euh, utilisé et ça montre ne nam daan wurujee élection te daawuñu ko xam parce que xam nga c'est très difficile période contentieuse bi cinq jours la le temps ngay jël les données mm-hmm. def ko sa ordinateur di calculer ba xam fan la jaar fekk na contentieux ba jàll par exemple tey c' est le dernier jour pour ñu déposer sunu sunu recours donc il a fallu que pendant quatre jours on se concentre nuit et jour si benn avec une équipe. est ce que vous avez des preuves. ah de fermé toutes les preuves ñu ngi ci PV yi et tey à moins que ñu am des juges de la CREI mooy des juges couchés yoo xam ne <laughs> lu leen président Macky Sall def ko mais li ñu am ci ay preuves y' a aucun juge aucun juge bu mën a teggi loolu. def def jox victoire Benno moo tax vraiment de de ce point de vue euh, si on peut faire confiance à la justice de de notre pays je suis très ok am na am na benn question. Mhm. et je veux comprendre te keroog maa ngi koy laajte <clears throat> écart bi ñu wax ni moom la leen Benno gagné ci résultat yi nii yi ñu wax ne ñoom ñoo gagné écart boobu fan la nekk. écart alors écart bi ñu ngi ko génnee ci Pikine Nord. mbaaw ak ak Pikines il mhm. y a pas eu d'élection à Pikine Nord dire mais ça c'est-à-dire que euh, fraude bi amee doole dafa jéggi dayoo yan façon fraude la première première technique de fraude bi ñu jëf à Pikine Nord et ça nous avons des preuves des cartes yoo xam ni dañ ko nekkoon à la commission kenn distribué ko on les a utilisés pour voter. Ah bon? Et on a donné ça à qui? waaw. à des gens quelconques ñu ñëw voter et on a des PV qui le prouvent. ah bon li nga wax ni daal am nañu. dossier PV. lii c'est grave. très grave non c'est-à-dire qu'il y a pas eu de fraude il y a pas eu de d'élection à Pikine Nord il y a eu une fraude massive. ah bon beneen beneen fraude beneen fraude massive bi am bi am Pikine Nord mooy bourrage urne. man ngaa man ngaa ko man ngaa ko man ngaa sa xel mën naa mën naa dégg. Mm-hmm. ñu compter ay bulletins de vote ñu ne il y a cent suffrages valablement exprimés biñ séddalee ba pare lañ séddalee nekk cent soixante dix suffrages exprimés. Mm. on compte les enveloppes. ñu mm. ne y a cent personnes qui ont valablement voté génne nañ bulletin nul. Mm. y a cent personnes qui ont qui ont valablement voté ñu ne wàllu am na soixante-dix <laughs> bennoo am na cinquante gëm sa bopp am na trente et comme ça ça choque personne ou bien on a le cas inverse on compte cent suffrages valablement exprimés ñu séddale tu fais le total des suffrages distribués baat yi nga xam ne dañ ko séddale diggante ñi ñi doon jongante au lieu mu nekk cent yi cent yi nga xam ni ñoo voté valablement mu nekk 70. très bien. <laughs> yeneen 30 mu jaar et loolu mu ngi ci PV yi. Ah. alors c'est gravissime. c'est quatre quatre communes na ngeen ko suivre bu baax. très bien Pikine Nord. Mhm. Pikine mhm. ak Dalifort. Mbao ce sont quatre yoo xam ne c'était quatre quatre centres de fraude yàlla yàlla yàlla mi def la wax ñaan un crime n'est jamais parfait dañoo euh, dañoo dañ dañ ko jëmale ci koo xam ne yàlla def na man damay dama nekk un statisticien hmm. Mhm. Hmm. tàmm di liggéey ci ay chiffres tàmm manipuler ay chiffres donc j'ai eu le temps mu dugal ci ordinateur faire les calculs def ay simulation def ay def ay régression gis toutes les incohérences yi am et c'est ça qui permet te bu ñu amoon une semaine génnaat yeneen façon fraude yu gën a doy waar. ça montre quoi que on a le temps bu nit ñi bu ñu amee jot di analyser les données des résultats. la ñuy mën a xam la fraude électronique bi nga xam ne moom le président Macky Sall di wurijee élection yi 2012 ba léegi. jërëjëf. Merci beaucoup. En tout Et bonne chance. <laughs> bonne euh, chance. Ouais, euh, et préciser que le cas de monsieur Timbo Benno Bokk Yaakaar bu leen neexee aussi ñu ñëw répliquer à vos déclarations. mais le camp de monsieur Timbo est dans la presse d'État nuit et jour guddeeg bëccëg. très bien Aïcha merci beaucoup en tout cas Fama noo def. ça va Asma man awma accès man awma accès donc à la RTS malheureusement. <laughs> Ah, ah, ah, très bien bonjour noo def Fama. bonjour Asma nuyu la bu baax a baax nuyu ñu ma bokkal plateau Passane Seck Fatima. Mm-hmm. nuyu suñu invité kontaan lool ci éclaircissement yi donc euh, di ko wax bonne chance Passane comme ni nga ko waxee. Mm. nuyu aussi ñi ñuy seetaan plaisir. plaisir la retrouver leen tout à l'heure rek ñu daal di ñëw ci suñu actualité musicale Aïcha mi ngi noonu laata loolu ñu Fatima Diop Arts et Lettres qui s'intéresse au biennale de Dakar et à la littérature effectivement <laughs> capitale de l'art euh, muy biennale bi ci loolu lañ fas yéene waxtaanee mais avant ñuy dugg sujet boobu ñu daal di wax rek un peu euh, ci littérature euh,